maa ngi ak xale bi nga xamante ni tey moo yëngal jamono xale bi nga xamante ni tubaarkàlla macha allah nee naa mi ni nak ah mi ngi tudd Ousmane Bongo Ousmane ñu bàyyi la nga nuyoo. waa Zingor maa ngi lay sama xarit bi yow lu yàgg ne dëgg la ndax da ngaa baax naa ngi bëggee ñëpp jaajëf. waaw Ousmane tey lan mooy sa relation ak <laughs> Ibro Naajo ba tax nga ñëw. waaw tey nag sama relation ak Ibro maa ngi moom ñoo bokk benn label bu doon ko baax waaw te ci kanam tuuti incha allah dina yàgg dina neex incha allah. gis dëgg neexul. tey est-ce que yaakaaroon nga ni tey fi nga toll ci aat ko fi taal. waaw ñun tollaguñu fenn te demaguñu fenn te incha allah tant ñu tant ñu koy dëgëral mi ngi dëgër day gën a dem incha allah. <laughs> ah kon tey dëgër ah. këj dëgër rek laa woote. Eh. góor ña ca góor ña jigéen ña sa jigéen ña <laughs> ñu nooy ànd ak ñu nooy ñu dëgër ànd ak ñu dëgër mu jeex. mais dama dégg naan dafa xaw a nooy pour nga am ay ay ay waaw xam nga boo nooy da ngay def nooy boo dëgër da <laughs> aca Ousmane ñu gis nga démarré si tëgg sabar teere ci bongo la moo ko waral ay surprise am na yeneen a yeneen ak yeneen yu war a génn incha allah dina génn yàlla aca sa inspiration ci li nga xamante ne moom moo di euh, son bi nga xamante ne moom nga moom nga génnee bu toj àdduna euh, waa koñ bi la inspiration waaw dañuy foo rek wala ay junior ay xale lañ defuñ dara waa koñ bi génn na waa réew mi léegi ma génn incha allah jaajëf ndax yow da baax. yow c'est la ba ngay ñëw sama anniversaire boobu kenn xamuma. nga baax gëm sa bopp nag ba tey egg fi nga egg. yaag sama caméraman bu ñaawul bi nga xamante ni libaas kenn du yow. nee naa la école boo dem am na directeur waaye caméraman yi ci réew libaas seen directeur maa ngi balaa maa kii gis nañ la barki démb rek nga bongool Marème Faye Sall ba muy fecc lu neex mais inspiration boobu sama yaay la maa ngi koy nuyu de passage. loo ko wayal Macky Sall nee na keneen ku ñu ko takkal bëgg ko yow rek la bëgg ndax Macky nee na devant Dieu et les hommes il a décidé que Marème que sa femme amul leneen. <laughs> mais kaay fa nekk kaay kaay kaay kaay kaay mais inspiration bi fan la jógee. liggéey rek. bopp rek rek muy dëgër kese. mais Ousmane coow li bëri na ci bongo ku ne naan góor ay lii ay góor jigéen lañ lu ne dégg nañ ko. mais loolu mais loolu yow boo ko déggee maanaam du la mel. yal na leen yàlla jàppale. bu se ñu fexe ba ku ñuy seen si kaala xaj mu des na rafet waaye kuy naan di boo màndee rek feeñ. sama sa dernière carte. sama dernière question leen la gars yi dëgër leen ko wala bëggee président président woo leen ak ak ñeneen ak ñeneen ngay dëgër di nuyu waa àdduna bi yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp. internet ni ma leen ko waxee woon maa ngi nii ak Babacar mi nga xamante ne bii tey moom moo yëngal àdduna ah Babacar Babacar ñu bàyyi la nga nuyoo. waa sama mag sama xarit maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu bu baax ah di waay di naan yàlla na jàmm yàgg daal ci bàtt si. am nga seen relation ak Ibro Naajo ba tax tey nga ñëw. waaye Naajo nag dañoo bokk koñ mu doon nit ku baax muy mu nekk doomu parcelle ma doon doomu parcelle mu ne ci aar bi ma ne ci aar mu doon nit ku baax. doon nit ku ñàkk ki ñaan la avant ma bongo feccal naa ko fépp fu mu tëgg xew feccal naa ko fu mu tëgg soirée ñëw naa fu mu tëgg concert ñëw naa xol bu rafet la yor barki alxuraanu karim mooy loolu Babacar ñu gis la nga jógee ci euh, fecc ñëw ci bongo lan moo waral nga jógee ci fecc waaw bongo bi nag moom xaw moo ndax dinaa doon bongo maan fecc moom moom laa mësoon a bëgg yàlla xam naa ja nan lañ koy waxee jaam ak pexeem yàlla ak dogalam yàllaa ma ay bongo ne ci lii la may teralee ma gëm ne ci lii la ma teralee ma jàpp rek taw a bàyyi. noo ci duggee noo duggee ci bongo yi. bongo yi nag ki ma ci dugal sama benn xarit la rek Ayda Thiam moo ma sa woo ci benn xew ne ma Babacar dama bëgg nga joxel ma teraanga ma ñëw joxel ko teraanga affaire yi neex ma continuer di bongo. concret ba tey ci aar euh, keroog gis nañ leen ngeen def sorti fële nga xam ne moom mooy Sen TV yëngal ngeen àdduna nag wax bi wax bi ngeen wax ne bongo bi dafa waroon nooy léegi àdduna bi yëngu na nee nañ bongo bi dafa war a dëgër waaw léegi ñëpp ñëpp nee bongo bi daa war a dëgër léegi man nee naa bongo bi daa war a dëgër kon na dëgër jeex waaw ah, ba tey Babacar euh, ci loolu rek nga nekk koo xamante ne bii ñii dañ laa bëgg lan nga wax tey soppe waaw maa ngi naan euh, euh, doon artiste daal yombul di nga gis ñu la bëgg gis ñu la bañ waaye man Babacar boobu wax fa dëgg yàlla man ba ma dalee doon nekk ci aar ba tey gisaguma ku ma bañ boobu wax fa dëgg yàlla ñu ma bëgg rek laa gis ñi ma bëgg nag maa ngi leen di naan képp koo xam ne fépp waay ne ma xam la ma ñàkk laa xam yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla musal la ci cat ak musiba ak balaa yàlla sàmm ñu te musal ñu ci lu bon ak ci lu ñaaw ci barki alxuraanu karim naa ak Bado ak Zé séeri Mama Diadio ku baax am jom am fulla am personnalité kenn mus koo dégg ci daraay détail barki démb boo jaay ba muy campagne ay doomam bañ ma jëlee yóbbu ma Kolda dañ maa teral may ma ay million barki Serigne Bam. te saa ndaw doomu ndey Wally Seck ngi nuyu vraiment ren bu bi saa ndaw ñu ngi lay nuyu. doomu parcelle di tëgg nga ñëw fi tey la moo ko waral. waa suma rakk laa seeraan si Ibro Naajo. dëkk ma yar ko mu doon booy bu yaru booy bu am yar booy bu am yite booy bu baax man du ma waxal kenn lu ma defalul mais moom booy bu ma respecté la moo tax ma dooleel ko ne ko fii musique bi kenn moomu ko defal lu nice rek ama respecté nit ñi jox nit ñi tër joué lu nice nit ñi bëgge mu neex. gis ngeen yéen a ci aar lan mooy seen secret. waaw non avancé moom ci aar boo bëggee avancé ci aar da ngay joxe cër say mag jox respect ñi la jiitu kenn jiituwul kenn sax mais cër dafa am kon ñu joxante cër bu ñu bëggee sunu aar avancé foog ñu yëg nit ñi jox nit ñi respect di xalaat démb démb dafa mat a sóor lu garaaw laa lay wax. lii la jaajëfal waaw bëgg naa maa ngi ak Jojo Jojo nag dama koo xaw a sut est-ce que ma wàcc ba tolloog moom Jojo mi daa mel ni ndaama de. <laughs> Jojo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi ci jàmm bu baax kay. te moo la fay indi tey ci baar bi. Ah, waaw dama ñëw pour soulager wu Ibro suñu xarit la suñu lépp la dañu ñëw soulager wu Kafoore ambiance moo ñu fi andi. lan mooy sa relation ak Ibro naag yi. non Ibro c'est mon frère. sama ko gisee actuellement. ah tout ça de tout va bien. tey boo ko doon jox conseil ci biir sénégalais en tant que xale conseil nga ko jox. ah mu gën a góorgóorlu rek parce que moom moom franchement kenn mësu ko dégg say détail moo tax ñu bëgg ko et tout c'est ça. on a vu que actuellement tamit tendance bi dafa bëri ci musique bi moom xale la ay ñoom Sidi Diop ñoom Bachung ñeneen ak ñeneen ak tey lan nga ko doon boo ko doon wax tey loo xamante ne tey soo ko avancé loo ci muy Sénégalais lan lay doon. na góorgóorlu rek loolu rek laa koy wax na góorgóorlu xale la xale bëgg nañ ko c'est ça. waaw damay reste à venir. mais li nga sant yaa ko waay bàyyi yooyu. <laughs> ziar lu bëri ñooy delloo ziar bu wér noo tudd man Pape Malick la Pape Malick Pape Malick la mooy sa relation ak Imro Naajo ba tax tey nga ñëw Baara Moundi non man moom Naajo moom yàgg naa ko topp depuis 2008 2019 si mbiyeeg fépp topp naa ko barke Serigne Touba Mbacke te borom parcelle la dëkk man parcelle laa dëkk sama koñ laa gëm man bilaa walaay taalaay Naajo moom dañ koy ñaanal mu ci kaw ci kanam man li jëntu ma beneen Naajo rek wër na yàlla tey boo ko doon jox conseil ban conseil lay doon. su ma ko doon jox conseil moom dama ko doon dama conseil bi ma koy jox mooy mu jugee suba teel demal boppam parce que Sidi Diop ëppale wuñ dara parce que Serigne Touba Mbacke su jugee suba teel mooy jiital Sidi Diop man loolu man maa la ko wax fii macha na yaar fii laa la ko wax biir Baara Mundi su jugee suba teel mooy jiital Sidi Diop maa ko wax. Ah? maa ko wax. dëgg la loolu sax. ragaloo ko parcelle laa dëkk. acca mon frère kontaan. ah Zélande sunu xarit sunu xale bu xew man li muy def barke Serigne Saliou comme jël Sénégal. te nga gisee Ibro Naajo Ibro Naajo doo ko gisee. Ah, xanaa di ko ñaanal rek fi mu teg bëtam mu egg ndax bu ñëpp waxantee Ibro xale la bu yaru bu rafetee doomu aadama parce ñun suñ jëlee suñu li ko nekk ngir am na lu mu ñu wan man artiste kon moom dëkk Yoof di waay mais Ibro rek moo ma jaral du ma ni moom rek parce que ma aar laay wër mais baakim baax moo tax ñu ñëw fii